war a daje ak Sa est-ce que motivation bi nga amoon bi ngay bëree ak magam Balla gay moom nga am ba léegi est-ce que motivation ba ngay bëree Gris Bordeaux moom nga am ba léegi est-ce que hargne ak détermination ak fugg ba nga amoon ba ngay bëree ak Bombardier moom nga am ba léegi ba ngay bëree ak Lac de Guiers est-ce que rage de vaincre boobu noonu ba ma la fekkee France man ak yow ñu taxawaalu fa nga xam ne fa la Paris Saint-Germain di entraîner man ak yow ñu dem nga nekk ci ay loxo may gis yow rage de vaincre bu extraordinaire est-ce que motivation boobu moom la ëmb am ba léegi est-ce que boobu moom la am ba léegi est-ce de vaincre boobu moom la am ba léegi bu jàkkaarloo ak Sa yi waaw loolu moo fi bàyyi ba léegi waaw doomu kenn du jur muus waaw loolu moo fi bàyyi ba léegi man séeréer laa ak joolaa comprendre nga waaw noonu la loolu moo téye ba léegi merci waaw. sax nee ñëw toujours sa diggante ak moom. waaw loolu la yàlla dogala ah. du mu sa dañ waaw l'essentiel ba du sifee daal ku mën sa morom duma ku mën sa morom daal mais maa ñaan yàlla jëli bi yëpp nekk sama xol parce que amu droit maa ngi ko def fekk combat bi lenn laa am droit ñëw bëre fekk ko daal seeti leneen fay ma la moom ma ànd ak yàlla man yàlla rek la àndal lu ma yàlla jël ma jël ko ndam laa ci gëm. combat bi dafa am lu mu représenté également ci yow parce que au delà de Sa Thiès mi xam ne dafa am plan de carrière am dafa am lu mu war a bind ci histoire làmb am na lu nga xam ne kii def na ko sama defaat ko ko. est-ce que loolu bokk na ci li nga war a bëriwaat est-ce bokk na ci li nga war a bëriwaale dugg gi mu dugg géejawaay daan fa ñaari mbër nga war a jël yow seen revanche devant Eumeu Sène Malick li euh, li passé yëpp dañ ko bàyyi ci loxo yàlla hmm. mënuma yenu yi nga ñuy wax nii yëpp duma ko bëriwaale loo yenu sama gëm-gëm lay bëriwaale hmm. parce que lu ma góorgóorlu ba daan ko rek yooyu dañ koy fàtte hmm. man kenn duma jël sama bop di ma ko chargé la yoo xamante ni am pression ngay bañ ci làmb jono dala bi kuma ko teg sama xajal la fa def man xel mu dal lay demee maa ngi liggéey ma nga ndax sama mbokk ma ngay sama top awu lu muy tit awu lu muy ragal yalla rek la gëm yalla la yaakar lepp lu mu mën ngir am ci ndam dina ko jéem dina ko def sama mag la mënu ma ko mënu mënu ci dara daf ma njëkk judd suma ko ndiko judd ba la ngay xoolee mm-hmm. bu arbitre nak digëndam mak mag ak rakk luy bay dakk pour fa ña fay dakk ay ndëpp ak xatar ba taxawal ak xat yu ma gën a xam ndax saay saay muus mi nga xaw ma lu ko booree ci po bi <laughs> nga ni bu ar bi génnee seen diggante dinañ jëflante moom ku ko xam xam ma du combat buy match nii am nee na du combat buy match nii waaw loolu mu wax moom amateur engagement la bu mu jël non saa kees ku ne xam na ni bu ar bi sifflé mu ngi sa kaw waaw ah, loolu na combat bi tey xam man ban problème laa am xam nga fan yee dafa am làmb ji fi amoon ñu tudd ci baatu combine quoi combine làmb ji est-ce que làmb ji ñu liggéey quoi parce que man xàmmewuma tey Eumeu Sène xàmmewuma Sa Thiès sama mag la buñ ma chargé liiru li ngay bañ Eumeu Sène moom lay def dëggal boppam rayanteeg Sa Thiès mais fi làmb ji jëm nii actuellement neexalante beeg raayante beeg te Eumeu Sène lii la commencé woon digganteem ak Tapha Tine te dernière face to face ba te la fippu est-ce que lii ñu tàmbali danañ ko yeggali non lamb ji moom xëy na ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa gis-gis mais ñi xam lamb dëgg c'est ñi xam làmb xam nañu combat bi yomb foofu rek laa yem ñu xam lamb ñu xamul nag mun nañu wax mais ku xam ñaari mbeul yi xam lamb dëgg bu xam ni combat bi combat dañ nek combat derby parce que waa ji daa faranku la moom li wax rek la ci ñëwaat déet da nga yow da nga da ngay da ngay profété da ngay profété dama déglu sa wax baax baax du benn yoon du ñaar yoon da nga ci ay sa ci si ko yaay ko sëb wala yaay saafa man nu ñewé baax na mais nu ma ñëwee rek baax na paré na maa ngi ñaan yalla and ak mom yalla may mandam ci paré tous les plans mais man sax naa taxaw bëdul sax bàyyi bu ma fayul sax man war naa taxaw fii ñooy wax ñu wax commune asgor moom wax tey sax dañ ko wax keneen mais pas ñun jërëjëf Sa mën nañ xaar Sa bi nga xamante ni moom la ñu gisoon contre Reug Reug Sa Thiès du bàyyi ndax dina bàyyi yoonam arbitre bi sifflé combat bi sa combat la yaa ko soxla combat bi xam nga fi mu la mën a yóbbu de sa carrière mën nañu wax ni combat bi c'est le combat de ta de sa carrière est-ce que arbitre bu génne sa diggante ak yaay def lépp yaay jëli parce que yow yaa soxla grand contre petit la bi ci des mooy Eumeu Sène est que mën nañ xaar Eumeu Sène arbitre bi sifflé ñu gis Eumeu bi bëri woon ak parce que bëri bi nga indil Tapha Tine nga xeex nga bëri sa digënté ak Sa Thiès wala da ngay taxaw diglu ko parce que moom moo soxla wala da ngay taxaw xaar. wala ëmë ba bëré woon gën Gris Bordeaux man daal bobu la namm. est ce mën nañ xaar mom Sa Thiès né na booboo neex. muy loolu Sa Thiès né na booboo neex est ce mën nañ xaar ëmë seen arbitre bi gën sa digënté ak Sa Thiès nga bu tal jaar xex ak xalé bi bu ak xalé bi bu di tolli Sa Thiès ku nakri de ku ndax bu dee doole bi mi ngi ci bëri bi mi ngi ci te am na rapidité bi te moom moom yaram waaw man laa moom lu mu laaj rek waaw ci jour si rek lu mu laaj a wax waaw toujours ji dégg lu mu la wax làmb xewee bu ñu wéeru ji laa dégg jox ko incha allah li ma gëm mooy dina neex dóor dina ci am bëri na ci am jëli bu leer maa wut ci nit ñaa ñu ko soxla lu leer laa def dëggoo ma ne dinaa ñëw ci jàmm su ma ko yàlla mayee dinaa góorgóorlu dinaa def la ma daan def la ma daan def na ba yàlla may man da mën a fii ku ko changé loo dinaa la kat am na solo grand Lamine maa ngi leen ñaanal jàmm yéen ñëpp Sathies ci yow laa jëkkee ama seen dama toog ak moom mu gëmloo ma ne ma li ngay def ci làmb ñi ma ko def ci jour bi mu ne arbitre nanguwut a soufflé ci nga da nga la nga daan def ci làmb nga ñëw ci kawam kenn du la ko conseillé saa kees arbitre suuf ne dagg na jëngi ci kaw Eumeu Sène ndax loolu lu ñu mën a xaar la. boo ma tegaloo ñaari Eumeu Sène sax ñaaru ko raw man moom jom fulla fayda sama papa loolu la ma digal dafa ne ma saa kees waaw saalif déggoo ma ne la bàyyi ñaari avance la ñu war a jox. yaakaar naa maa moom nii. dafa joxe ñaari avance yëpp dama ko war a yóbbu suñu paree dañoo war a bëriwaat da nga gëm ne Eumeu Sène mi bu arbitre sifflé la nga daan def bëri ñu mën ko lu ma gëmul ci Eumeu Sène du ma jël avance am te boo ko mën a damay bàyyi làmb man ko ciy félicité bu a samay moroom yëpp maa ci gën a néew defet wax ci li muy bëri yëpp kenn ku ci nekk am nga koo boot ngay wax lu la neex ci moom mais kenn gënu ci carrière ak palmarès loolu moom li ma gëm la Eumeu Sène gëmul ne. waxoon ngeen ko waxoon ngeen li ngeen wax bi waxoon ngeen ko sama combat bi paas. Sa Thiès Eumeu gëmul ne li ngay def ci làmb di ko def ci kawam. waaw mu bëri bi Sa gëm. yàlla nañ cee gëm jàmm yàlla naa ne yàgg nañ laa xam ci dox bu bëri. te sànq dañoo toogoon ma yow di waxtaan émission nga ne ma Sa gaaw na loolu waaye melax la fi fekk Eumeu Sène li Sa Thiès daan def mbër yi Sathiès séeréer na Eumeu Sène doxul ci ko Eumeu Sène loolu la ci amateur yi mën a xaar waaw d'abord lu may leen di tontu rek mooy non waxuma la ne Sathiès ñëwul def ñu def gars loolu moom teguñu ko quoi bu ko ñemee voilà ah, non ah, ay nawee garaawul nga <laughs> waaw loolu rek jàmbaar nit kenn ko changé maninam moom boo kenn changé loo maninam yaa ngi xaar Sathiès ñëw lam def lam daan def mbëri non non pour naa bëgg neex waaw bu kenn changé roo mali na bu Sathiès defee lam daan def mbëri sa stratégie lu mu tàmm def bu fekkee ne Sathiès ñëw na def lam daan def mbëri seere ëma seen perse ëma seen ñëw bëri yi loolu moo ko mën a am waaw nañu bàyyi bu sori incha allah jërëjëf jërëjëf léegi nag Malick yaakaar naa ni kenn du wax ëma seen wooteel kenn du wax Sathiès wooteel mais ay professionnel lañu ci fànn wi ñu bokk ñun nag lii lañ ñu jàngal mooy ci fii dinañ dóor ñun li ñu jàngal Baye Ndiaye ñun li ñu jàngal mooy bu ñu bu ñu joxee lépp it kenn ku ci nekk dañ lay bàyyi ak la nga am woo nañ suñu naatangoo yëpp kenn ku ci nekk jël kàddu léegi li li ci des mooy dañu jox Malick suñu mag mu tëj mais ba laalaa loolu laataa loolu Eumeu Sène dina joxe kàddoom bu mujj saa kees joxe kàddoom gu mujj Baye Ndiaye gërëm nañ la sant nañ la na ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam Malick Thiam